Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di wóor. Euh, salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen wax soyez les bienvenus dans votre chaîne leader Setsima TV tey nag ñoo ngi si biir banlieue bi fan la Pikine tali bu mag ba tax na nag tey dañoo ñëw pour laajte sénégalais yi seen avis tey nag tembi leen lenn la c'est pas normal ba tax na dañ leen di laajte te suñ nee c'est pas normal mooy yaakaar naa ni du yoon non c'est pas normal moom ku koy wax Sénégal doo fi jógee parce que rien n'est normal présentement ici au Sénégal dara normalu fi bu ñu waxtaan li nga xam mooy dëgg benn on nous parle d'un couvre-feu d'accord c'est bien mais boo defee couvre-feu dëkk bii di gën a bari ay feebar doo seetaat beneen solution te mënuma comprendre un pays comme le Sénégal ñu nekk fii au Sénégal ci fii ci Sénégal gii nga xamante ne ni mu bare ay cadre bare ay intellectuel mënuñoo fexe fexe fexe ba créer benn affaire bu ndaw a ndaw a ndaw par rapport à cette maladie rien du tout lépp dañ ko bëgg a jéggaani mais c'est pas possible kon naka la nit ñuy wéree fii kenn du wér c'est très difficile dëkk bi ci boppam moo yéeme il faut que ñuy concerté wu ak doomu aadama yi parce que garab yaa ngi fii ci dëkk bi garab yaa ngi fi ah. yu mën a faj sa corona la ñu ngi fii ci dëkk bi taw nit ñaa ngi koy fajoo ci dëkk bi il faut que ñoom ñu def ay gëstu ñoom kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci kaw def ay gëstu dugg ci traditionnel bi au moins xool sax tuuti foofu comme ñoom les scientifiques mënuñ ñu génne dara mais ñu dem xooli traditionnel bi ba xool ndëgam teel na fa génn nit ñi dañuy sonn quoi franchement parler. ah ñu ne dañ daa xëy di wàcc huit heures neuf heures léegi cinq heures moom métti na trop te ñu yor suñu njaboot ak borom kër. nett na trop moom dëgg yàlla bu ñu sañoon daal ñuy wàcc ay 8 heures 9 heures comme heure yi ñu doon wàcc daal waaye 5 moom wala ngaa xëy mi di jot moom doy na waa trop nett na trop nag. non dëkk bi man est-ce que dëkk bi sax bu dee dañuy wax c'est pas normal est-ce que am na lu normal parce que dëkk bi leen na bëri na de dëkk bi ci boppam nit ñoo sonn danoo sonn laa ñun ñuy jaay sonn nañu tàyyi nañu couvre-feu bi. neeñ feebar am na ci dëkk bi kenn du ko laam-laamee feebar am na waaye ñun de suñu gox bi mosagunoo teg bët ñu ne kii corona moo ko jàpp marché bi aussi buñ ko tëjee 17 heures nga gis nit ñi dañuy buuxante grand place yi fees kon amul sens nañ bàyyi nit ñi ñu dox librement avec des protections ak distanciation bi ñu ñu ñu xeex feebar bi ensemble mais ki nga xam ne baadoola la di daan dooleem ñii ci bëri majorité sénégalais yi cereek fonde la ñuy reere buuxante bi ci ngoonee da nga koy gis ci koñ yi ak angle yi kon book dëkk bi dara jaadu fu jara normalul nanu xoolaat li jaadu ñu teg ñu ci yoon ñi ñu jiite nañ ñu tegu ci yoon réew mi tegu ci yoon mais dëkk bi dara jaarul yoon nanu yaraat suñu bopp surtout nag ñi ñu jiite nañ yar seen bopp population bi mën a yaru topp leen nu xeex mbas mi mu jóge fi mais baadoola bi nga xam ne par ngoon la daan foraatu di jaay cere wala fonde wala laax nga xëy na ko dootoo ko fi def yaa ngi koy lool. waaw li ñuy ñaxtu moom daanaka boo dee xool benn wax la ndaxte ñun ay jaboot lañu ñuy daw dépense jàppale suñuy jëkkër nekk see jëkkër ba ñu retraité kër moom ku ne xam ne ñaar a ko bu ñu xëyee suñuy jëkkër xëy ñu wuti ñu xëy aw ne. boo xëyee lii ma gën a métti ci mbir mi mooy confinement bii ñu def boole ci nag 5 heures la ñuy wàcc 5 heures pile yow léegi boo xëy see xoolal man maa ngi soog a egsi maa ngi xëy nekk sa kër kurci kurci kurci boo boo jullee boo sangoo ba julli a ngi ci kër gi nettoyé ka bàccakat boo paree tëb ci yoon yi embouteillage bi métti métti goo wax ne maa ngi nii soog a egsi ba léegi mbaaw sax mbaaw lay joge ah am na ñu ma gën a sori ah te jigéen mënul xëy tëj këram rek dem léegi soo egsee toog heure yi ñuy jaay suba teel heure bi bu passé boo soxkiwul jeex na 4 heures ngay laale wala 4 heures parce que 5 heures puis bu la fekkee bu na fekkee da lay ramasse te boo ramassé ñuy dégg naa ñu naan 6 000 ñu naan 3 000 en tout cas da ngay fay dégg nga da ngay daw a daw yow da fit na ngay laalee ba sa tension bi day baissé. moom fi mu toll nii lu normalul bari na quoi ndax teg bi nga xam ne moom lañ tëj nit ñi nga xam ni surtout banlieue bi nga xam ne ay am na ñoo xam dañuy daw dépasse. seen reer bu ñu xëyee bala ñoo joxe dépense dañuy dem ba mu naaj ñu envoyé seen ñoo ñu metti na ci ñoom yow nga bëgg a bëggoon a xëy wàcc ay vingt et une war a jël oto jóge Dakar ñëw wala jóge feneen ñëw léegi lu xoola temps bi ngay def ci yoon nit ñëpp bole ko kaar yaa ngi fees boo demee ci opp hôpital yi foo dem mi ngi fees ba pare yow nga ne nit ñi nan nan nan teel a wàcc xam nga loolu lu normalul la na bàyyi xel ne nit ñi ñi néew doole dafa ëpp doo dafa bari nit ñi jaay reer guddi nga xam ni dañ doon commencé jaay à sept heures dix neuf heures wàcc ay zéro heure di ki daw seen départ di ki fay location ñooñu mett na ci ñoom na fàtte ne maanaam fii ñii loué dafa bari te location yi cher na pour nga am loo dunde am loo fay location metti na na bàyyi xel loolu nan bàyyi xel loolu location bi cher na xam nga te par la force da ngay fay pour nga fay location dund dundal sa njaboot ak say xale yi jàng loolu dafa metti réew mi fi mu toll ku nu méttiwul rek da ngay wax lu la neex métti waaye foo ko takk rek passé na ko nan dawal mën a xam ni Sénégal dafa am ay réalité réalité mooy lan li ni ñuy dundal Sénégal boo ko yoree États-Unis wala nga yore ko France doo dem parce que fii li am Sénégal amul fenn dans le monde entier. fii li c'est pas normal bari na de ñun ñu ngi nii bu ñu xëyut duñ añ duñ reer duñ dékki. dañuy toog fii war a jaay benn moment ñu ne ñu telle heure ngay wàcc dimanche biñ daan foraatu duñ ko ñëw dimanche bi da ngay xëy am problème mu ndékkee ak añ ndax ñu lekk bi ci ci njaay mi ci la suñ lépp dépendre ñu xëy un bon jour xañ na ko mu ngi noonu. ah xanaa teel a wàcc gi ñu teel a wàcc loo rek boo xëyee ku mel ni man yor malaat bala ngaa xëy si presque midi jot bu 5 heures nga wàcc dimanche doo liggéey xam nga loolu dafa metti ci jaboot. xale yu góor yi nga xamante ne dañ daan fréquenté si marché bi di lal par tàkkusaan bu banque yi wàcce wala bu bitig yi wàccee ñu lal ñoo ñëpp mënatuñoo lal dañoo toog waaw dañoo toog. ma ne feebar bi ñëpp la metti danoo bëgg dama bëgg doomu aadama yi gëm ni lii suñu ab ndox bu ñu yàlla teg rek la natt la waaw nañ delloo suñu xel ci yàlla waxi sëñ Muntaxa gi nañ ko appliqué fu mu toll nii ñuy jënd ci loolu. nan ko appliqué mooy nan suñu bopp ci yàlla di jàpp di julli di sellal ak euh, raxas suñu xol yi takk suñu masque yi ñu ngi sant te set set moom bu doon feer bi sax moom set ñëpp la war xanaa kay dañ koy digle ndax waaye moom ñëpp foo set moom foo toll da nga kaa war a def yàlla njëkk ak bëgg set di takk suñu masque yi impose ni ñu takk masque yi di tegee ay charte yu yu dan ko takk par force moo gën confinement bii ñu def confinement bi la mu faj dafa naa ngi dégg dégg information tey Côte d'Ivoire daf ñu confirmer te ñun ñoo ëpp ay ka kon nag lii dañ jam gëm yàlla xam ne lii mbiru suñu borom la nañ ñaan yàlla mu teggil ñu ko njëkk suñu masque bàyyi ni ñu lekk seen activité liggéey dëkk bi métti na de xëy na ñoom dañ koy yëgul waaye daal métti na de métti na trop trop trop trop ne daal ku njëkk a yuux da ngaa ragal waaye métti na ci ñëpp leer laa la wax. c'est mais bien sûr c'est au régime de prendre quand ses responsabilités. résime bi mooy jël ay responsabilités am nous sommes au Sénégal un pays boo xamante ne noir dañoo am ay réalité dañu am ay réalité dafa am lu fi maam yi bàyyi dafa am lu fi maam yi bàyyi dëgg la ñaani moo ëpp doole par rapport ak li sëñ mu tax a wax douze jours yi mu génne décrété ko pour nit ñi di ko ñaan parce que vraiment dafa xoolal situation bi mais loolu ci aada bokk ba tey ci aada la bokk ba tey mu d' accord diine la mais mun nañ ko boole ci aada ndax au moins benn sénégalais moo jël initiative taxaw daal ne léegi nañ def douze jours di ko def ay ñaan pour nit ñi mën a mucc ci ci mbas bi mbas du feebar mbas balaa la bu jóge fële aksi feebar ay sibiru la ay yooyu mais mbas du feebar nañ waxtaan dëgg mënuñu ko faj amuñu garabam garab baa ngi ci wolof yi bu ñëw léegi léegi léegi ci traditionnel bi léegi ñu gis médicament bi gaa yi nga koy génn ci internet ñi ñaa ngi koy gis internet baa ngi génne lu nekk nit ñi di ko gis mais donc il faut impérativement que ce régime là xam ne ko c'est des africains nañu bàyyi tubaab yi amul lu ñu njëriñ barke alxuraan amul lu ñu njëriñ tubaab yi amul lu ñu benn njëriñ ñu dul wàññi ñu man problème ay surtout waxu nouvel ordre mondial boobu ñuy wax nañ ko teg fële parce que ça ne nous lie pas gëmuñu ko ñun man de gëwuma ko xaw ma nag keneen mais man man Amidou baa gëmuma loolu. ah xëy na normal la ci ñoom xëy na ñoom ñu koy tëj ñoom ñoo xalaat li tax ñu di ko tëj 17 mais am na ñi nga xam ne à partir de 17 heures la ñuy wàcc ci mbedd mi di daan seen doole lu ci mel ni par exemple léegi sirumaan yi nga xam ne ñoom ñoo yor taxi di fanaane liggéey ñooñu bu ñu gontul du ñu am lu ñu jox seen njaboot ñi nga xam ne par exemple léegi ñoo yor gargot yi ak restaurant yi ñiy jaay guddi reer. ñooñu loolu lañu yaakaar pour jot seen njaboot bu ñu jaayulee du ñu am lu ñu jox seen njaboot métti dina dina métti ci ñoom trop wax dëgg yàlla. waaw mooy dama la jox exemple. couvre-feu bi ñuy indil rien n'est normal 17 heures nga wàcc nit ñi buuxante tata yi fees bii si fees ñu ne day wàllaate mais kon couvre-feu bi amul sens benn sens amu ko kooku Eh, c' est anormal li ñu def nii xaw ma dañ nuy teg pression xaw ma nuy jaay doole xaw ma lu nuy def mais dara lu jaar yoon amul ci lii état bi jël di ko daf parce que marché yi nit ñi sonn naña dañuy jooy pour parce que baadoole bi nga xam ne bu jaayul suba du añ bu jaayul du reer nga xañ ko loolu lépp kon te dëkk bi mën naa la wax dara normal non li nga daan faraatu ngoon gi war koo yóbbu pour reer loolu doo ko mën a amati da ngay mujj gi da ngay taaba taaba li nga daan am suba gi moom ngay jël rek lijjanti ko mu jéem koo yamale ci journée bi rek. fii réew dimbalante la nit ñi dañoo pauvre xam nga il faut ñu jàppale doomu aadama yi couvre-feu bi amul benn njëriñ parce que soo xoolee tey par exemple bu nee euh, Sénégal 16 millions de habitants boo xoolee seddaay bi nga xam ne lan tey nit ñi ñuy génn guddi gi parce que matuñu sax 1 million de personnes. xanaa ñi muy sonal ñi jógee Dakar di dox am na yoo xam ne croisement Cambérène la ñuy doxee jëm si Pikine jëm Géeja waaye jëm noonu ci kaw ah yooyu nañ ko xoolaat yooyu dafa metti am na lu àq réew mënu dox ci àq àq doomu aadama yi nga xam ne xamuñu lu dul liggéey ak jaamu yàlla lan xam dunu sàcc duñu fen pour dundal seenu njaboot ñooñu buñ leen ko xañee àq jooju diis na de nan bàyyi xel loolu diis na trop. man daan naa nekk ba 9h wala 9 ma doog a wàcc. gis nañ ni 17h yéen ñëpp ngeen wàcc léegi loolu noonu lu mu leen yàqal. yàqal nañ lu baree baree bare moom yàqal nañ lu baree baree baree baree bare xale góor yi da leen di yërëm ndax ñoom ñoo fi daan nekk bu ñeen ñi wàccee ñoom ñu lal gont si mais loolu yëpp mënatul a nekk loolu yëpp mënatul nekk suñu meer nag moom ku baax la amat Diarra wax dëgg yàlla moom nit ku baax la parce que dox na ci ay jéego mais sottiwul waaw mais yàlla baax na daal. acca ñoo ngi leen di jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay gis nañ nag tey ku nekk joxe na version am li nga xamante ni mooy c'est pas normal si dëkk bi ba tax na nag ma si àndaloon sama caméraman bi nii di Papa ñu leen di jox dig daje si beneen reportage incha allah. Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér woo